réew mi quotidien ñu xëy fekk fa maître Bassirou Baldé mi nga xam ne mooy avocat ndaw si nga xam ne moo moom salon boobu ñuy wax ne fa la Ousmane Sonko yàkkataane xale bu jigéen bii di Adja Sara moom maître Bassirou Baldé def na ay révélation yu doy waar a doy waar nee na dañoo proposé xaalis dañoo proposé xaalis xaalis bu bare bare bari ki nga xam ne moo moom salon bi ngir nag mu daal di tuumal ngir mu taqal ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko yéen a kaay gi di direct news nee na su yi nga xam ne maître Bassirou Baldé wax na ko ne nag dañoo proposé bu bare bari bolom salon bi ngir mu Sonko am na magu xale bu jigéen bi xale bu jigéen bi moom salon bi benn magam daat nay wax ne proposé nañ rakkam jooju lu toll ci quarante millions ngir mu taxal Ousmane Sonko waaye na xale bu jigéen bi dafa lànk kandaare maître Bassirou Balde nee na xale bu jigéen bi nga xam ne moomam salon bi dafay doog di am doom te nag dañu koy xoqatal jamono ji di ko traumatiser di ko toroxal ngir nag mu daal di tuumaal ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko yéen a kaay gi de las enquête Vox Populi Les Échos Sud Quotidien nee nañu Ousmane Sonko def na niki démb ab déclaration nee na mbir mi dañu ko complot complot lu ñu orchestré la maanaam lu ñu togg te lépp nag Macky Sall ci boppam moo ko jiite ak Antoine Diome mi nga xam ne mooy ministre de l'intérieur ak procureur Serigne Bassirou Gueye waaye nag ñoom yàgg nañoo def ay complot ci réew mi waaye nag bii du jàll kàddu Ousmane Sonko la damay nettali moom Ousmane Sonko nee na digg ginnaawam ci boppam moo am ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram fenn fu nekk dem na fa ci ay salon de massage salon de massage bii nga xam ne moom lañ koy tuumaale foofee benn xaritam moo ko wax na ko salon la boo xam ne bu baax la te ba pare salon la boo xam ne am na agrément salon bu tege ci la moo tax Ousmane Sonko nee na mu dem fa lu may loolee sax am na salon bu mu njëkkoon a dem boobee nag dañ ko wax na ko séance bu nekk deux cent mille la mu ne man mu demee nag salon boobee fekk fa ay jigéen nee na dafa woo ab oustasam oustas bi na ko su dee da ngaa am ay jafe ci lu jëm ci sa wàllum wér-gu-yaram man ngaa dem ñu maasa la jox ko exemple ci ab gynécologue boo xam ne góor la jigéen am ay jafe mu war koo xool ba tey ci biir journal bi moom Ousmane Sonko nee na dafa am ab orthopédiste boo xam ne moo ko ko conseillé yéen a kaay gi nee na Ousmane Sonko wut na ay avocat sàmm ba taxaw dëgër këccee nee na sax tey jii du wuy ji gendarmerie bu Colobane ndax immunité parlementaire am nee na mbiri yëpp dafa bëgg ñu jaarale ko ci yoona bu ñu dindee nag immunité parlementaire am moom dina dem wuy ji moom Ousmane Sonko nee na préparé na ak njabootam préparé na tamit ay bagaasam ngir dem sa kasu ba waaye nag woonam mbooleem ñi nga xam ne ay militant lañ ak militantam ak sympathisam ak société civile beeg ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum politique gi ngir ñu jóg taxaw daal di takku ba dëgër ki nga xam ne mooy Macky Sall ndax trop c'est trop kàddu yu Ousmane la yéen a de Libération nee na lu jëm ci levée immunitaire parlementaire bu Ousmane Sonko tey jii la mbir yi di commencé enquête yéen a kaay na am ba des mbir mi di yomb ndax opposition bu Sénégal jamono ji nag woote nañ ay mobilisation te ñi nga xam ne ñooy waa Pastef maanaam mbir mi danañu ci taxaw ma taxaw ci yéen a kaay gii di réew mi quotidien fekk fa Barthélémy Dias moom nag nee lii nga xamante ni moom la Ousmane Sonko di dund mbir la moo xam ne mbir mu ñaawa ñaawa ñaawa ñaaw la te li nag ab complot li koy faj mooy ñun ñëpp ñu a Bougane Gueye moom tiim daat nay jàppale Ousmane Sonko ak docteur Babacar Diop ak maître Moussa Diop ñoom ñëpp dañoo jàpp ne lii ab complot la boo xam ne dañu koo def ngir sànk Ousmane Sonko yéen a kaay gi di réew mi quotidien Boubacar Seye mi nga xam ne moo jiite Horizon sans frontières te ñu génne woon ko si kaso bi ba léegi ni nag ma ngi am ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum wér gi yaramam ay jafe yu métte métti dañu ko hospitalisé ci benn clinique Aliou Souleymane Diallo bu ONG Otra Africa daan nay wax ne Boubacar Seye bi mu génnee ci kaso bi dafa gën a am ay jafe-jafe lu jëm ci wàllu wér gi yaramam borom bi te kaso si boppam moo ko ko teg yéenekaay gi di La Tribune nee na Emmanuel Macron njiitu réew France daan nay bloqué Abdoulaye Wade ci Ndakaaru ndax moom maître Abdoulaye Wade dafa bëggoon a dem ca diwaanu Paris la France bu fa jugee dem sa diwaanu Doha ngir gisante ak Karim Wade ndax toog na lu toll si ñaari at yoo xam ne gisul doom ji waaye nag moom Abdoulaye Wade waa France joxuñu ko autorisation de vol maanaam lu koy may mu daal di mën a wàcc cab roplaan ci diwaanu Paris la France yéenekaay gi di bi ak force Covid 19. dix-neuf ak yi nga xam ne dajale nañ ko si ak ni nga xam ne moom lañ séddale milliards yi la nga xam ne moom lañ si dajale lépp bi ñu ko xayma toll na ci sept cent soixante-treize milliards ni ñu ko séddalee noonee lépp journal bi xëy na ci yéen a kaay gi délibération xëy ci mbirum terrorisme gi nga xamante ni mooy jaaba jonge ci réew mi yéen a kaay gi délibération xëy di ñu xibaar naan ñu am na ñoo xam ne njort nañu ne ay terroriste lañu te am na lu ñu doon togg ca diwaanu Kidira ñooñee teg nañu leen loxo yéen a kaay gi di estat xëy wax ci wàllum football ca Premier League ca Angleterre nee na Manchester City jamono